c'est bien donc nag ñu ne dinañu la presse sénégalaise waxtaan ak ñoom présenter leen album bi ñu mën ko waxtaanee voilà donc loolu moo ñu fi indi tey donc kii ma toogoon nii suma wet musicien sénégalais sénégalais la woykat la moom yàlla dafa dogal ni studio fa la enregistré album bi muy booy boo xam ni suñu rakk la Japon la nekk yàlla jàppale ko mu ñëw investir fi studio bu mag studio high class bu mag fa lañu album bi loolu moom mooy toogaayam fii ci table bii ki ngeen gis mu toog fii yaakaar naa li ma ko présenté presse bi moom mooy président IEM mooy le président euh, des acteurs de la musique te comme ñu ngi yàlla dogal musique bi léegi euh, dafa bëri ay bagages donc il faut que ñu leeral lépp mu leer mooy tey jii ñi nga xam ni dañuy wax association bi association bee donc association bi nga xam ni tey ji peut-être ci la artiste yi nga xam ni ñëpp dañ leen reconnaître ci lañ nekk moom moo ko jiitee mooy Zeynul loolu moo tax ñu woo ko euh, keneen ki toog nii producteur de musique parce que moom moom club gaynde bi ngeen di dégg moom moo ko moom. parce que artistes yu bëri tamit tey jii bu fekkee dañu génne album te amuñu fu ñuy exprimer wu moog ñoo yem donc nit ñoom mën nañu wax ni ci société musique lañ bokk. ba pare nag mu nekk quelqu'un boo xam ni dafay investir parce que man maam góor li ma gëm ci nit mooy nit kenn du ko lekk kenn du ko naan njëriñ lañ koy dee njëriñu nit du lay may xaalis mais nga bokk ci dëkk. teg ay infrastructure yoo xam ni sénégalais yi dañ ciy gis seen bopp di ci liggéey di am salaire donc loolu moo tax ma naw ko ma invité tey mu ñëw suma conférence de presse ba pare ma def nag benn morceau boo xam ni suma yaay laa ko mooy boo xoolee album bi quatre titres la ma kaarimal axlaa maa ngi ko woy sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ Abdou Karim ndigalam laa am soo gisee pochette bi sax photo daf ci nekk parce que li ma amee idée tey ñu ngi nekk ci weeru safar ca màggalu Tuuba bi ma amee idée génne sama album bi bëpp ci way dama dem seeti ko waxtaan ak moom ni ko bi damay génne album boo xam ni dafa war génn ci màggal bi ma am yéene nag am benn morceau boo xam ne dama la ci way fekk defaroon naa maquette bi bi ma demee mu ne nañ ko teg il y avait plus de mille teg ko ñu ko tegee mu déglu ko ba morse bi dem ba ci digg bi mu tourné xam naa jëwriñam benn jëwriñam bi mun nga xam naa lii de maase na maase na xam naa mooy neex na waaw bi mu waxee loolu après mu ne woy bi neex na ma yaakaar naa ni woy wuñ ma mas a woy rek bii moo ko dàq mu wax ko te boobu maquette kese la ñu yóbbu foofu bi ko defee mu ne sama kër sax dama fi tere woon ay filmer parce que am na ay temps ñu doon wax dafa ay militaires yu demoon foofu naan réew mi Bamba moo ko moom genre coow mu doon mu ne bëggatul kuy ñu bëggatul mu mu daal joxe ndigal ni bu fa kenn filmer ci mais jour daf ma woo ma ñëw mu ne ma mu ne gars yi nañu photo jël vidéo mu ne ma def ko ci clip bi kon am naa ci ndigal donc loolu moo tax cër boobu moo jox ak noonu moom moo fonkee dafa tax morceau bi bu ma ñëwee dama ci yokk sax loo xam ne nekk ci woon comprendre nga donc en grosso modo loolu tey ñu woo ñëpp fii pour présenter leen album bi léegi nag di ci des ci journaliste yi la des bu ñu demee kenn ku nekk am nga oto wala mën ko déglu sa kër wala machine wala dara yaa xam noo koy apprécier mais donc daal li taxoon ñu tey mooy présenter album Makarima Allah journaliste voilà su fekkee am nañ disponibilité man ko déglu fii alhamdulilah su fekkee temps bi may ñu ko tamit en grosso modo loolu et puis album bi disponible na partout donc fu ko nit bëgg ci àddina bi mën na ko am voilà donc préparé nañ tamit après màggal bi benn tournée boo xam dinañ ko def dans les régions war nañ dem tamit international def ay affaire parce que tamit ñu bëri benn moment comme ni ma ko waxee encore gars yi bu la nit li la fal doo ko bàyyi donc loolu moo tax nag day ñëwoo ñëpp fii voilà merci beaucoup